julli mënuma ko dama koy ñëmatu bañ a def waaye mënuma ko <laughs> non non mënuma ko wax dëgg yàlla mënumaa julli moom mënumaa julli mënumaa jàpp man leer na ma ni bonuma waaye yenn saa may bon bon waaw même bu njëkk bi ma daan naan alcool yi daawuma màndi màndi bokku ci non bi ma daan naan alcool mais gis nga loolu gis nga fi ñu toll ni ku ko naanul fii boo demee fee pourtant di nga ko naan loolu laa bëgg ngeen xam ko. la tudd. moccoo ta macca ci ci wacca xecce ni ci wacca xoccoon na caa di cëmb cë a càkk ba cër ka cër di cëmb cë ku ci rëccal bu ci bi cees bi ci nga ca xaccam na ci sa cant ci wi ci bi sport xew mais sport yëpp xewe ñoom maa ngi fàttaliku ba ñuy dem final ba ca Mali te Alaaji Diouf seet si wan ma ak Sarr ak la ma leen waxoon bañ demee final ba ca tiro biir ba dafa amoon lu taxoon kub bi ñëw loolu jarul ma koy wax waaye bii itam kub bi narul woon a ñëw <laughs> xanaa ñu dugal ci yërmande waaye narul woon a ñëw ndax dafa am lu ko waral dafa am lu ko waral loolu nag du ma dugg ba ca biir waaw xam naa Amadou la Sall daal bitu démb bi moom ca vey ba am na lu ma ko ci junjoon waaw bit ba rawaan na ko dugal waaw te junjoon naa ko euh, Amadou Lamine Sall. 221 yi ni ngeen ci méditer 221 mooy indicatif Sénégal bu président ni 2021 bi eh, bu ñu dindee zéro bi rek day nekk 221 day nekk indicatif Sénégal te boo nekkee bitim réew booy wootee Sénégal téléphone faaw nga def 00 double 0 ba noppi def 221 kon 221 boobu lu jar bàyyi xel la te ngeen dalal seen xel ñu ngi leen di encourager bu baax. te nag di leen fàttali la ma waxoon rek li gën a gaaw ci indi coupe bi waaw jërul ma ciy dellu li gën a gaaw ci coupe bi ñëw waxoon naa ko Sidna Ali loolu it laay waxaat bu boobaa nag mën naa am euh, <laughs> du doon lu ñuy fàtte du moom sama karaay bopp ji taxul de ku na xam ne ni kara Kefra Alif mooy 221 waaw mooy l'indicatif du Sénégal waaye kara ñi ko tudd dafa bari d'accord su ma neexee ràcc tey ci sama kanam waaye moo ko beneen karaa it ko neexee ràcc tey ci kanamam lu yaatu la daal yëfi ku tedd ki la lumière lumière la rek mu ngi fépp jot na ñu soppeeti constitution bi ak hymne national ak turu réew mi ñu bañ a tuddeeti réew mi senegal tudde ko Mbàkke Bari moo gën senegal te wut sunu xaalisu bopp ni Gàmbi tudde ko baari dana ne waaw kii nekk na lii mbaa nekk na laa nag euh, yooyu lijjantiwuma ko yi jëntuma ko bon dégg naa ko effectivement ñu ne am na ay franc-maçon yu fa doon man baatu franc-maçon sax laa gisagul ku ma wax mooy dëgg dëgg dëgg mooy lan ku ma ko tojal moom laa amagul ba tey waaw euh, loge yu mel ne euh, mason yi. Mm. Euh, dañuy yàq jikko yooyu de. Mm. dañuy xaar sëñ Modou Ka. Ah, ñooñu ñooñu ah waa ah ñun loolu. loolu ci spirituel bi la wala temporel bi la ñan ñoo naan ñi dañu yàq jikko yi wala nangam ak nangam xam nga bu fekkee njàngale la rek. Mhm. ñun daal li nu ko tedd ki jàngal innal xasanaati yuzhibna sayyiati yu rafet yi bu ñëwee lumière la day gàcceel yu ñaaw yi. Mhm. waaw bu nit ki ñëwee indi loo nga ne loo xam ne baaxul nga ñëw indi lu baax. humaniste nga sëñ Modou Kara humaniste la. nit moo ah, ah, ko jërëjëf yow loolu naa la ci neexal. <laughs> dama ci damm maa ngi nii li ngeen di def nii loolu du saaga da ngeen naan Kara moom laa bëgg a tontu tey wax ci affaire yu ceddo affaire yu ceddo senegal ma wax leen seeni maam ci fan la ñu jógee ci ceddo isme d'abord balaa islam di ñëw ci ceddo yi lañu jógee ñu waxtaan ci affaire yu ceddo ak nan la duggee Sénégal ñu waxtaan ci tuuti waxtaan ci ustaas yi nga yi nga xam ne dañoo jóg tey ak euh, sëñ Modou Karamé wax ci électricité bi aussi dinañ ci waxtaan voilà mooy sujet yi ma leen bëggoon a indil tey parce que ci France man laa ne woon ci affaire wu li xew Afrique comme dama war a ñamal sénégalais ma ñamal leen rek te wax ci préparer dossier Afrique yi au nom ñi ñuy jiite au nom de Cheikh Ahmadou Bamba ah ñoole tey mënatuñoo julli ñu jóge ci ci mënatuñoo julli ah ñu ne tey nag tey nag wàcc nañ tey xam nga waxoon naa ne këraa daanu saret moo gën a gaaw pour wàcc daanu ci saret moo gën a gaaw pour wàcc moo gën a moo la gën a noppal sax nga jóge ci avion di daanu du tey tey sotteeku nga nee nga nee nga wax nga si affaire julli waxatuñu si affaire julli nga duggaat ci beneen phénomène duggaat ci beneen beneen domaine ba pare nekk au nom de Cheikh Ahmadou Bamba au nom de jarbaatu Cheikh Ahmadou Bamba temps yi nga daan naan alcool xanaa waxoo woon say mbëkk nekk ngay naan alcool wala ñu toppale ci loolu gis nga Kara acte yi ngay jéem a dugal ci maayinu sénégalais yi acte yooyu ngay jéem a dugal ndànk-ndànk tous les deux mois nga feeñ nga génne benn affaire loolu lañ naan repentance mooy saw yoon du foofu loolu moom lañ naan repentance saw yoon du foofu gis nga dama ne Sénégal ba ñu koy formé Sénégal bañ koy créé ah tubaab yi créé wu ñu ko de ceddo yi ñoo ko créé ceddo ñoo créé Sénégal ay ay ay Lat Joor ay Amari Ngoone Sobel ak liste yooyu ngeen yor yëpp ay ceddo lañu woon ah balaa islaam di dugg biir Sénégal ak balaa christianisme di dugg senegal dafa am maam yoo xam ne nag dañu dese woon ci ceddoisme ñu bañ ne duñu tuub bañ ne duñu nekk ay julit nekk ay ceddo léegi sénégalais yi nga xam ne dañoo tuuboon ñoom ñu nekk ay jullit ñuy traité cedda yooyu dañ ay ay mécréant lañ voilà te yéen a bokkoon ngeen nag gaño gu ngeen jógee ngeen jóge si genn ak maam ngeen bokk genn ak ceddo ñu ñëw convertir leen ci l'islam jóge ci conversion boobu yéen ñi ngeen xamee ne da ngeen gëmoon islam ngeen di traité seen yeneen moroomi ceddo ne ay mécréant lañ parce que loolu ñu ngi ko bindee ci coran boo xam ne ne naari ñoo ko dugal foofu ñu ñu ñu ñu du duma leen ci islam ñëwaat dumaat leen leen ci christianisme Sénégal seeni maam yépp ay ceddo la ñu woon dama leen ci jëlal rek ay quelques exemple quelques exemple rek ci ay nit yoo xam ne ceddo la ñu woon te dañu doon xeex ak Joor mi nga xam ne Lat Joor dañ ko dafa convertir boppam en islam parce que Lat Joor ceddo la woon ñu convertir ndeyam ci islam mu dem di xeex ñi nga xam ne dañu des Sénégal bañ ne duñu conver dugg ci benn religion nekk ay ceddo ñooñu nag ñoo yor affaire yi ba léegi nag moom la leen Kara bëgg a wan. voilà parce que cedday ñoo doon naan sangara temps sax sàngara xewul eau de vie moo xew eau de vie moo amoon ci suñuy temps yi maam ñoom ñoo ko daan defaral seen bopp dooseel ko seen bopp naanal ko seen bopp dañ defe ne nag naankatu sàngara du liggéey cot fu mu toogee ba liggéey Sénégal ba ay abbé en la dix-huit cent ban année sax je l'ai noté ku ñu naan abbé Boilat né le 23 avril 1814 1800 laa leen da wax de waxuma leen 1914 date de la première guerre mondiale 1814 abbé Boilat est né à Saint-Louis Saint-Louis du Sénégal donc 1814 yaayam mi ko fa sukk jur mu juddoo Saint-Louis Sénégal fekk na ñoom yàgg nañ fa ñëw avant Abbé Boila boobu du def ay écriture sur la vie des Ceddo au Sénégal c'est le première prêtre qui a mis les pieds au Sénégal et c'est ce premier prêtre qui a écrit sur ces écritures moo tax écriture u Cheikh Ahmadou Bamba xamu ci sarab ndeyam parce que lépp ñu ngi ko denc ci musée musée yi ñu ko denc fii ci ci France moom li mu bind xam ne tubaab yi ñoo ko jàpp kidnappé ñoom li mu moom li mu bind ak li mu xam ak bagage am tubaab bi ñoo ko jël denc ko ba léegi kenn joxuñu leen sarab ndeyam bagage yi ñu leen yónnee bagage keneen la waaye du bagage am ma wax leen ko bu baax les ceddo convertis à l'islam traités de mécréants d'incrédules de sans foi ni loi des consommateurs d'eau de vie avec des cheveux qu'on appelle les dreadlocks aujourd'hui. Ça, c'est écrit par Abbé Boila. En 1814, il est né à Saint-Louis du Sénégal. Voilà. kooku bi muy ñëw bay bind fekk na seeni maam yëpp ay keddo la ñu woon keddo la ñu woon booba islam ñëwagul christianisme ñëwagul bi islam ñëwee ak christianisme ñëw ci la guerre yi am nag ci entre keddo yi ak ak yeneen yeneen ethnie yi nekk bi Sénégal ba ci région de Waalo te région ceddo yi mu ngi demoon ba Sénégal bi Gambie ci ceddo yi la bokkoon Mauritanie ci ceddo yi la bokkoon Sénégal ci région ceddo yi la bokkoon bu leen ñu fontoo voilà delluwaat leen cosaan delluwaat leen cosaan moo gën même Kara sax mu ngi leen koy wan Kara mu ngi leen koy wan pour ngeen delluwaat cosaan. ceddo yooyu nankatu sàngaro yooyu ah ñoo dóor Hitler ñoo dóor ñëpp ñooñu ñoo doon suppalaku nekk ay ay ay ay yeneen affaire tubaab yi di ko gis di daw te ñu comprendre ñooñu ñooy vrai ceddo yi waaye du ñu fi nekk tey naan ay ceddo lañ ay faux ceddo ngeen parce que gëmu leen sarab ndeyam ceddo mooy ko mooy koo xam ne dafa am dafa opposé ci toute religion dafa am. opposé sur le christianisme et sur l'islam qui a été introduit en Afrique xanaa loolu jàngu leen école l'islam est introduit en Afrique le christianisme est introduit en Afrique introduire mooy dugal avant ñu ko fay dugal nag ay keddo ngeen woon voilà Jamil Le Sagna yow dinaa couper sa dëjjaw ndey parce que tu me fais chier d'accord moo pare naa la couper boo jàngulee demal jàngiwaat Jamil Lasagna christianisme dañ ko fa dugal islam dañ ko fa dugal loolu moom munoo ko weddi si sa dëjëw ndey xanaa boo ko weddoo mu delluwaat sa dëjëw ndey munoo ko fa weddi islam dañ ko dugal Sénégal ay ceddo woon ngeen l'empire du mandak bi ngeen doon tiitaroo naan da ngeen amoon or ak foofu dafa vertoon nag dafa defoon nii empire yooyu bi muy am boobu islamisme islam existé wul ak christianisme ci Afrique voilà. Lat Joor ci ñu ñu tuubal la bokkoon Lat Joor ñu ñu tuubaloon pour mu nekk musulman ci la bokk nag moom moo doon xeex ñi nga xam ne ay non musulman lañ ay non converti lañ ñu nekk ci ceddoïsme au senegal ku ko weddi dem leen ci dem leen liiri dem leen jàngi wala ngeen liiri ji Demba War ma wax leen beneen histoire parce que Demba War koy woy chanteur yi ñu ngi koy woy Sénégal lu bëree bëri bëri bëri Demba War Sall mort en 1902 Demba War Sall ceddo la ceddo la ñu convertir que à l'islam au nom de Mamadou Sall fa la turandoo doomu Macky Sall Mamadou Sall turandoom fa la jóge sàlleen googu fa la jóge moo xal leen ko Demba War Sall mort en 1902 ah kii judd ci kuñ naan may sa tendi joor fils de joor mbay ñu convertir leen lépp à l'islam Demba nag moo tuddoon Mamadou Sall fa la turandoo euh, doomu Macky sàll bi fa la jógee ay success ay successeur lañ de dynastie seen époque dynastie des Guedj waxoon naa leen ko voilà ñoo ñëpp nag ah ñi liste bi bëri na mën nañ leen a lim bëri nañ ëpp nañ ay cent wala ay trois cent personnes yoo xam ne woon Sénégal ay ceddo la ñu woon balaa tubaab yi ñëw di leen convertir ci islam ah ak christianisme ma waxaat leen ko moo tax nag ay ceddo des senegal boobu ba léegi voilà ceddo yi ñu ngi leen doon xàmmee xàmmee si seeni i dreadlocks seeni dret dread lañ leen doon xàmmeewe dreadlocks mais xàmmee ñu leen woon ci affaire ay allahu akbar ak ay xasida ak ay yu kenn xamul les vrais ceddo moo tax Sénégal bu ñuy wax dañuy wax spirituel traditionnel spirit spiritualité traditionnelle l'esprit traditionnel la ñuy wax voilà dañ delluwaat foofu sur l'esprit de nos tradition voilà la spiritualité c'est une tradition à nous c'est notre racine rien d'autre rien d'autre et les qui étaient ivres et qui buvaient de l'alcool c'est eux qui construit le Sénégal ma waxal leen ko voilà balaa ñu naan tuxkatu yàmba yeeg naankatu sàngara yi ñun ngeen doon xas naan dañuy naan sàngara xool leen kooku leen di jiite yor mbooloo mbooloo la ñu yor di leen jiite te ñoo fi dàq naan sàngara daq fee tux yamba dàq fee laal ci caga ji dàq fee cakaay Europe ah ñu di leen door fii ay whisky glaçon ak yu kenn xamul ak ay morito ñëw fi bëgg ñoo amerde ah abi yi génn fii may wax ay taalibe yu mel ni yaay Fall di bàkkoo Touba bàkkoo sëñ Touba bàkkoo ku ne ah bàkkoo Kara ngeen capp seen ndey ñi ngeen bàkkoo ñëpp tey mooy dugg seen dëjjëw ndey actuellement mooy delluwaat si yéen voilà du man ngeen doon xas naan tukkatu yàmbaak naankatu sàngara maa ngi nekk samay beer di naan mais Kara wax na ko te moo leen jiite au nom de Cheikh Ahmadou Bamba loolu moom ça coïncide pas y a quelque chose qui va pas